programme bi di programme mu cinquante mille lampadaires yu ñu a tas biir Sénégal ci cent quarante deux communes tey nag li ñu fi dajale mooy dañu ñëw pour lancer projet bi nga xam ne moom la ñuy installé Touba mu concerné deux mille lampadaires ñu war a tas ñëw nañ fi y a trois mois de cela ànd ak kilifa dëkk bi def visite bi xool fan la ñuy def làmp yi defal plan d'exécution yi delluwaat waaj door a ñëw nag tey indi matériel bi pour door projet bi. projet bi nag li euh, monsieur le maire wax sànq projet président de la république la le président Macky sal mu xalaat ko pour jàppale ci communes yi waaye xalaat ko pour jàppale ci askan wi pour jàppale leen ci sécurité dëkk bi mais également pour jàppale communes yi ci wàññi seen facture éclairage publique. acte bi nga xam ne président de la république def na ko Touba par ministère de l' énergie par directeur général de l'ANER bi nga xam ne un an et ñu ngi ci di waxtaan ci projet bi bi mu bi ñu ko initié yo wax ma quota Touba ma ne ko ah directeur de loolu baax na lool mais Touba day quota boobu nga ma wax vraiment war nañu seet nan la ñuy def ba gën ko amélioré dolli ko ba muy lu am important lu visible ci dëkk bi defe naa ne biñ ci waxtaanee def na ko plus de dix fois li ñu programmé woon. loolu nag ma di ko ci sant bu baax di ko ci gërëm eh, ci turu sëriñ bi waaye ci turu conseil municipal bi ci turu euh, population bi yëpp. ñu topp ci booba ba nege ni waroon nañ bokk ci dëkk yi njëkk a am mais ci nan la ñuy yokkee quota bi ba mu ma deux mille lampadaires loolu moo tax fan lay jëlee nan lay def nan lay organi defa organiser. ba bu joxee Touba li muy jox Touba di lu am important man a jël torson yi nga xam ne torson yu guddi lan loolu moo taxoon ñu yeex ko tàmbali. ba fan yële nag mu ñëw lu ma deux mois ci gannaaw mu yebal fi techniciens yi techniciens yi ñëw ñu ànd ak ñoom def étude ci fi nga xam ne nañu euh, confirmé na ne danañu jox deux mille lampadaires ci ci ñu bi techniciens yi ñëwee ànd waa ak waa commune ci ndigalal xalifa général des mourides mu boole ñu ak Cheikh Bass ñu dem waxtaan ak ñoom ci torsion yi nga xam ne nii ñooy prévenir ci li nga xam ne première phase bi foofu lañ ko war a def biñ ko waxee mu ne nañu tàmbalee ci jumaa ji fii nga xam ne ndax dëkk bi jumaa ji mooy symbole bi mooy li nga xam ne moo fi njëkk moo lépp lu ñuy def loolu foofu la war a tàmbalee looloo tax ñu tàmbalee ko fii. d'abord dañu tànn ay lampadaires de qualité. yoo xam ne leer nañu ne feek ñaar fukki at ak lu topp boo fi ñëwee da nga ko fekk buñ ko installé pare entreprise bi ko installé dañu signé moom contrat de maintenance pandant six ans juróom benn at ñoom ñooy assuré maintenance lampadaires yi mais bu weesee maintenance dañu signé extension garantie donc lu nekk ci lamp yëpp dañ ko garantir lu ci yàqu aussi ñoom ñoo koy remplacer bu loolu weesoo bu juróom-benn at yi weesoo ñu ngi commencé xalaat naka la ñuy gérer lamp yi ba nga xam ne dina am pérennité au moins ci vingt cinq ans jëm kaw. li tax ma ne vingt cinq ans parce que batterie yi ki nekk nii dana durer déjà dix ans panneau yi mën na durer vingt cinq ans lamp LED yi durée de vie bi di euh, douze ans la ñuy xalaat bu jeexee ñu changé waat ko yi ñu ci def yëpp dana am au moins quinze ans donc loolu mooy tax effectivement euh, lamp yi. wuuteeg chantier yi ñu fi daan def mënuñ wax ne yi boo amee at kenn dootu ko gis solo bu amee ñaar at kenn li leen li garantir mooy éclage bi dana fi def au moins vingt cinq ans te ñun muy nguur gi danañ ko suivre ni ko war a suivre. liggéey bi nag euh, door nañ ko tey waaye am nañ yéene mu pare balaa màggal gi. oto bu ko yàq yaay dem wuti lamp sa ense dañ ko fay wala sa assurance fay ko loolu moom mesures yooyu le ci commune bi jël képp koo ci xam ne yàq nga ci lamp. bu ñu nappee dañu koy assurer jox ko police ak gendarmerie képp koo ci xam ne nii oto boo xam ne yàq nga ci lamp da ngay fay. loolu mooy mooy moom rek mooy programme parce que oto li li ñuy dal nii dootuñu dal booy benn benn torchon dem nekk ñaar fukki lamp di mbedd benn oto mbëkkab lamp secteur boobu yëpp coupé duñ ko mën a fay bu ñu waxee ñu ne oto bi dafa am assurance te kenn du ci mën dara gannaaw nag oto bi dafa am assurance kenn mënu ko téye ne ko da nga fay contre tiers la. la assuré te dal na ci ceer te li mu li mu li mu dal fayul assurance loolu moo tax dañu bureau municipal bi ak conseil ñi ngi xalaat def assurance boo xam ne nii dañ koy assuré euh, secteur bi oto boo ci yàq loolu suñu yónnee ko ci assurance bi mooy yor moo responsable mooy fay mooy defaraat lamp bi mi saa ko ba mu mel ni melan